هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله الله وصله بنت وهب وهنيئا لها بذاك الوزان وعليكم من كل خاخ سلام بفقر الله تولى في بطنها سواء قدر الزهراء نتوا أصله مفاد الغالي وعليكم من كل خاق سلام لفخر الله طول الليالي وبدا درة اليتيمة حسنا ومع اليتم في رقاء البادية من كل قاخ سلامه لفخلق الله طول ليالي دام حمل هذه السهر الهكوها تسعة لم تؤسس له بسقالي وعليكم من كل خلق سلام لفخلق الله طول ليالي كل خلق سلام ضيف خلق الله جول ليالي وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق الله جول ليالي نوره أمان الوجود وجود فضل العزول والأنجال وعليكم من كل خاخ سلام لفخر الله طول الليالي لم يظل روح بآن إلهي في الكون بعد انتقالي وعليكم من كل خاخ سلام فقد إلهي طول الليالي ثم خطها الأضياء وتجلى نوره في أبد إله العالي وعليكم من كل خاخ أدخ النساء يا عبد الله الله من أجل البهاء والجمال وعليكم من كل خاق سلام لفخر الله طول قال أما jërë jëf mbokk yi ñu toppandi ci Uras Info tey jii ñu ngi dikkal leen fi nga xamantene ne modi kawla di Kaolack kenn ku nekk xamna li sabab bi moom modi wajal gamu gi ñaari bes rek dox suñu digganteeg eh, gamu ku ne gamu nak sa xel dem ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass rawatina fi nga xamantene ne modi moo di eh, Ngane mbokk yi fu nekk li joge di dik fi nga xamantene ne modi Medina Maulana Cheikh Ibrahim Niass ngir magale fi guddu yonent yalla Muhammad sallallahu taala alayhi wasallam ñu ngi fii ci Kaolack Ndangaan waaye ñu ngi fii ci Ngal Sayer fii ci kër Mouhamadul Amin Sow wala ñu ne oustaz Cheikh Mourabbi imam ratib bu Ngal Sayer fekk ci njabootu maam Thierno Alpha kenn ku nekk xam na ki nga xamante ne moom moo di maam Thierno Alpha wala nga dégg ko digganteem ak Maolana Cheikh Ibrahim Niass loolu yëpp dinañ ci diggal ci waxtaan incha allahu rabbi imam Mouhamadul Amin Sow ñu ngi lay ci biir Uras Info. Uh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di fay di leen delloo nuyoo ci uh, waa Unas Info yow nga xam ne yaa fi teew mooy Alassane Diallo di nuyu waa Unas Info am wala ñu koy seetaan ci àddina bi ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ndokkee ñu tamit ci weer mi nga xam ne mooy weer Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu muy weer mi nga xam ne mooy weeru gàmm ñu leen di nuyu bu baax jërëjëf mm. macha allah fee nañ la nuyoo imaam Mouhamadul Amine Sow. te benn bés dañuy noppalu beneen bés bi li mooy guddi gàmmu bi ñooy fukkeel beeg benn mooy noonu mooy guddi boobu waaye ñun nag mawlid bi la def ñun xam lihaa bi comme ni nga ko waxee waaye yàlla dafa def ñun dañuy bugg Mawlana Cheikh Ibrahim di ko roy ci lu ne moom dafa amoon kóllëre bay li mu bind ci ay woy moom daawu ko tàggee daawu ko gàmmoo li papaam doon gàmmoo. mooy pour euh, li nga xam ne mooy Hamza Busri ak yeneen yu yooyu la doon gàmmu ngir lan ngir ko daren waaye ñu ne tamit ne ahlan bi shahril mawlidi zakarana bil muhtadi asl usulu sayyidi habibina al mubajjali boobu la ñuy jàng lu weeri taro ba léegi muxtaar ak mbooloo mi nga xam ne ñoo koy taxawee moom lañ koy defee ba erog karog bi nga xamee ñu ngi dem ca gàmmu ga ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo ñu war moo na ne Cheikh Ibrahim royukaay la tax nee na moom ba mu ñëwee fekk gaa yépp tàgg yonent bi su déggutoon yaaram sax day ut kayitam yu weex jël daxa ñuulal ko waaye la muy wone mooy bëgg yonent yàlla muhammad mu ne wa in kuntu lam uhsin madiha muhammadin usawwida awraqan bi hubbika ulin kon danaa ñuulal samay kayit waaye li may wone rek di ko biral mooy mbëggeel bi ma am ci yow yonent bi sallallahu wa sallam loolu mooy li nga xam ne moom lay feeñal kon mbëggeel boobu nag yal na ba ñu ko إني لأعرفه معرفة وأحبه محبة ولو أذبته وصاحبته ما زاد لي من زينك سيد mu ne xam naa yonent bi xam-xam bëgg ko mbëggeel su ma àndoon ak moom Makka ak Madina ànd ak moom Taif ànd ak moom Uhud xam-xam bi dara du ci dolleeku mbëggeel bi dara du ci dolleeku ko fa saydatu fatimatu zahra moom ak imam hasan ñoom ñoo dalandool alquran bi jox leen ko jox amat caane moo leen amee woon moom Ceerno Abdoulaye Diallo moomu radiallahu anhu moom moo nekkoon taawu Ceerno Alpha bu góor bu dund gannaaw gi nag am nga awliya li ñu bëggee doom Mawlana Cheikh Ibrahim xam na ni doom mel te la jël Abdoulaye moomu delloo ko mu nekk diggantem ak Cheikh Ibrahim di dem di ñëw di dem di ñëw bi 1975 bi bàyyi génne àddina Ceerno Abdoulaye di dox loolu bekki bi bàppam génne àddina bu wuutu ko ci la fi faydu bi takk mu taal fi li fi takk yépp dëkk bi tund yi li dalee ngaan gi li ko wër li ba Mbuleen ba Xelkom yeneen dikk yëpp ci biir Saalum moo fa tasaare faydu Cheikh Ibrahim bari na ci dikk yoo xam ne yóbbu na ko fa eh, tasaare fa faydu Cheikh Ibrahim bi ba loolu moo ñu indee lii tey nga xam ne nuñ koy màggalee keroog bi weer wi teroo diggal bi nga xam ne moom la amoon ci Mawlana Cheikh Ibrahim am ko ci Alhaji Abdoulaye am ko ci xalifa yi lu mel ni Cheikh Mouhamadul Haaji lu mel ni Imam Hassan lu mel ni Cheikh Nazir lu mel ni ñoom Thierno Al Hassan kenn ku ci nekk joxoon na ko ويبدأ في مولد دمو ترو ñuy jàng mawlit bi ba jëmm yàlla tey jii loolu moo fi continuer ba ki nga xam ne mooy xalifam bii di Thierno Mamadou bi fi jumaa ji taxawee ba léegi continuer nañ di ko def lu weer wi teroo di ci roy Cheikh Ibrahim parce que moom amul noppalu amul tëj fukki fan ak benn yëpp daf koy màggal juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam incha allah daloon nañ ko keroog alxames ba ca dimanche bu soobee yàlla nañ def mawlit bu wërsëtee altine nag ñëpp daje fa nga xam ne mooy ci ba barab nga dem kan nga ah, maanaam Nigéria nga dem Cameroun nga dem Tchad nga dem euh, euh, Mali nga ñëw Abidjan nga dem bi Amérique ba Égypte ba Soudan yëpp yi Mawlana Cheikh Ibrahima moo fa yóbbu gamm te boo ñëwee nations yi yëpp ngay fex fekk fii ci Madina ñu ñëw màggal ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baxee koo ci barab bi soree soree sori ngir màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamne moy mooy gën ci bindeef lii loolu mooy gàmmu bàyyi nag nee mal mawlidu illa hadithun fi diini yu xalilu wal anasib gàmmu du dara lu moy waxtan ci diine le le ñu neexale ko ay wëy wëy na moy tag tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci kom te inda zikru salihin te tanazzalu rahmat loolu la gaa wax waxtu bu ñuy nettali gaa yi góor yàlla yu baax yi yéen ma ne yàllaa ngi sotteeku goor yàlla yu baax yu nak ki len baaxaloon séddaleen ba ñu doylu bi àddina yëpp topp leen bu yonent yàlla muhammad koo koy xam nañ ne su fekkee ñu ngi nettali ay xar baa xam di tudd di ko tàgg xam nañ ni xéewal yi mooy mooy dotteeku ci ñun yal na yàlla yóbbu ñu ci guddi googu comme ni nga ko waxee fii ci ngaan sayar nag Mawlana Cheikh Alfa Diallo radiallahu taala anhu moo wëllarante woon ak maam Cheikh Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu wëllare boobu nag jiitu woon na ci maam Alhaji Abdoulaye gannaaw gi moom ci la fi génnee dem ci Fuuta di wër di gestu xam-xam di ko wër àgg na ba Mali fu ne dox na ko ci réew yi ñibbisi ba muy ñibbisi na fekk maam alaaji génn na àddina ci la fas lante moo faslante Mawlana Cheikh Ibrahim te ku si jaroon benn di leen ba ñu doylu ba àddina yëpp topp leen bu yonent yàlla Muhammad koo xam nañ ne su fekkee ñu ngi nettali ay xar baa xam di tudd di ko tàgg xam nañ ni xéewal yi mooy dotteeku ci ñun yal na yàlla yóbbu ñu ci guddi googu comme ni nga ko waxee fii ci ngaan sayar nag مولانا الشيخ الفجل رضي الله تعالى عنه مولرن تونك ما مولانا الشيخ ابراهيم نيس رضي الله تعالى عنه كولري بوبنا جيتو وانا تي ماغ الحاج عبد الله لان في موم تي لافي جيني ديم تي فوتا دي وور دي جيستو خام خام ديكو وور اغنا بي مالي فوني غوخنا كو تي ريو يي جيمبسي با مو نيبسنا فك مام على دي جيننا ادنا تي لا فصدان ابراهيم تكو سي بن ديمبو te la ko Cheikh Ibrahima laaj ne ko sama taalibe de amel nga ma ko war nga ma koo jox mu ne ko waa baax na te boobu amagul benn doom ju góor gannaaw ga la dem ba yàlla def mu am doom ju jigéen muy taamam muy suñu wayjur ñun nii gannaaw ga mu am ku ñu tuddee Abdoul Aziz ba tey kooku yàlla dogal ba muy laata joon eh, daal jàng fekk génn àddina mu dellu laajaat ko ko mu alaji Abdoulaye Diallo mii juddoo ko ana sama taalibe bi mu ne ko mu ngi fi juróomi at la ko indee ci Mawlana Cheikh Ibrahim jëlee ko njeejeen indi ko Medina mu dalee fi alquran ci kanam Mawlana Cheikh Ibrahim mu yëkkati ko dénk ko Seydi Aliou Cissé kooku jëkkati ko dénk ko fa Seydatu Fatimatu Zahra moom ak Imam Hassan ñoom ñoo dalandool alquran bi jox leen ko jox Amad Thiané moo leen amee woon moom Thierno Abdoulaye Diallo moomu radiallahu anhu moom moo nekkoon taawu Thierno Alpha bu góor bu dund gannaaw gi nag am nga awliya ni ñu bëggee xam na délégation buy jógee Touba fii la خسيدة تعلمهم أقول لهم في مويسان دال لي أي أكي أكلا أنا تامين نبوري نو كامل نيجي كوان دال نيجي كو بانجول في مويسان دال مملي أستاذ موي آه، آه، محمد با دعين كو خمدي أكالي أك بولا في موي أندال في مويسان دال أي نينان أي نينان نيب من شاء الله بني الله جو بو تجو قديغا آه، بني بلانيرال أنا بروجرام كنا بنجو جي جي تجول جي أبا am na programme bu ñu taxawee fii ci biir kër gi mbokk yooyu ma la wax dañ fii waxtaan wax naa ko atam ne leen seen jotaay bii ngeen di def fii ak bi ngeen di def Touba ci Cheikh Ahmed wax dëgg yàlla seytaane bëggut ci ndax étape Cheikh Omar bu ñu lal malaanum xadaratul juma bu ñu def xadaratul juma lal fa malaanum wasifa def fa wasifa faneen fane def fa xadaratul juma dëgg-dëgg iblis kontaan waaye ëtt bii tamit nga xam ne itam Mawlana Cheikh Ibrahim bi ay muqaddam ay cheikhu murit mm-hmm. def fi waxtaan jàng fi leen xasida mm-hmm. waxtaan fi ci diine waxtaan ci relation diggante eh, Serigne Fallou ak Cheikh Ibrahim mm-hmm. seytaane dugum ci waaye yàlla bu ci mosal ngi eh, gërëm doom yooyu nga xam ne ñoo ko taxawee yal na yàlla yokk leen muy Cheikh Ahmad moomu ak Cheikh Ahmadou Tidiane ak seen mbokk ak seen i rakk ak seen i am di jàmm yal na yàlla yokk leen yal na yàlla taxaw leen ak yéen leen ñi leen koy jàppale di jàppale nag ci xalaat ak ci jëf yal na yàlla yokk seen man-man bi a nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko teewee ak yu bëree bëree bëri wa maa zaalika alaa llaahi bi aziiz asalaamaaleykum macha allah waaleykum moom la yàlla di wax ne maa ngi lay nettali xar baaxu yónnent yooyu te moom moo leen gën moo taxoon ñu yónni leen ndax yónnent yooyu yëpp dañuy bëri bari yàlla tudd na ci ñaar fukk ak juróom ci alquran balaa moo doon yónni dafay yàllante yow ne da nga am yónnent bu ma yónni aaxiru zaman ci ñëwee yow da nga basa woote bu la fekkee ci oote da nga basa oote nga ànd ak moom mu ne waaw ba mu nangu loolu yàlla doo ko yónni yàlla gën a xam ne duñ dajee waaye foog mu won leen ne ki nga xam ne am na ku war a ñëw te moo tax ma bind leen moo tax ma leen di yebal kooku mooy yónent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi gis nag radiyallahu anhu su ko doon wax mu ne yónent boobu bu fekkee moom la ñuy nettali xar baaxu yónent yi ngir xelam dal ci naka ñun jullit ñi nga xam ne ñooy néew ngëm néew doole lool nakal ñun lu tax duñu dajale dañu nettali xar baaxu yonent bi dañu netali jikko yoonte bi dañu nettali xar baaxu sahaaba yi ngir ngeen mu bijje ñu bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte sa bi soo ko bëggee mën ngaa tëdd sa géwént ko te né nak no ma gisé ci géwént rek man la ndax seytane mën ta soppé ko sama jëmm kooku moy yoonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak comme lolu amna ko yalla ko njëkk taggé lolu leral leeral ko mbir moomu gannaaw loolu nak lu yagg nit ñi commencé nag di gestu di màggal juddu yonente bi sallallahu alaihi wasallam. bu njëkk nag kànkoor yi dañ doon daje di tari alquran di jàng fa na tari alquran ba jamono ñëw nga xam ne tey dem nañ ba gàmmu nii nga xam ne moom la ko Sénégal di tëdda tëralee kooku maam alhaji abdoulaye Niass radiyallahu taala anhu moom moo ko indi moo ko wone parce que moo dem ba jëf yal na yàlla yokk man-man bi xormati nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko teewee allah waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatu jërëjëf imam ñu ngi koy sant beneen yoon xam nañ ne tey aljuma la dafa nekk ci xat-xat ndax léegi heure bi jot bu yéexoon tuuti duñ jot ci moom ndax léegi mbooloo mi dar ko ñu utale fi nga xamante ne moom moo di jumaa ji xam naa nees tuut dinañ leen jotali wala ñu tektal li nga xamantene mom modi julli juma bi nga xamantene mom mo koy taxaw fi ci ngane mbokk mu wax wax ju rafet mu di digante cheikh ahmadullah khassida ak ñi muy andal ñu jóge ci Touba barki dembo njaay ñun wa iras info fofu mo neewon suñu célébé yoon naka nonu bu ñewé fi ci Medina bay ci ngane seer dal fi gamu fi moy célébé yoonam dinañ and ak yeen ci programme bi dimanche ci ngone inshallah biir iras info ak ñi muy andal ñepp naka nonu alkali euh, dina jóge fi nga xamantene mom modi gambi Andak delegation mom tamit dal di dik comme ni ko defee woon Touba ni defee ko fi keur Thierno Amadou Sow ki moy waajur bu gor Thierno Amadou Sow di kilifa bu mag dama len di faral di wax kewel du tepp dom jeubet nit ki lim namp rek lol lay gal machallah xam-xam bi rafetna jotena wax ji rafetna jotena ñu lay sante bu baax di la gërem imam di la wax amin ci ñaani di la ñaanal yow nga yàgg fi lol ak khalifa bi ak ay rakam ñun ñepp ñu di ñaanal yalla yalla ma len ak wér ak wérle mbokk ñu ngi leen jox rendez-vous ci kanam inshallah ñu joxal leen beneen kilifa ci biir waxtanu gamu ci biir iras Info inshallah ci benen numéro assalamu alaykum wa rahmatullah hani هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع في جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله